الله من كل كريم أكرم من آمه قلد لهم تكرم asalaamaaleykum mbokku internet Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccaay ci màggal gi dina wax nag tey ñu ngi fi nga xamante ne nii mooy si jumaa ji wax na ci seen fi mu adama yi takkoo takkoo takku fu ñu jóge ko si àdduna bi fu ñu jóge si réew mi ñu ngi fii tey di fas yéene def li nga xamante ne tey mooy màggal googu noonu ah lépp lu nit waaye ñaan ci màggal gi li may waxoon laay bamtuwaat yàlla na ko yàlla def waaw. asalaamaaleykum maa ngi lay nuyu papa. waaw maa ngi lay fay. waaw la. man maa ngi tudd moom Bamba Diop. Momadou Bamba Diop waaw fan nga jógee yow màggal si. bon man maa ngi dëkk Mbacke. waaw waaw. waaw fii su suma suma zone la ko waaw tey noo gisee li nga xamante ne mooy màggalu 2020 bi. waaw màggalu 2020 gi mooy sant sëñ Touba rek. Mhm. parce que comme ni ngeen ko gisee nii. Mhm. Euh, pèlerins yi ñëpp ñëw nañ ngir sàkku si euh, euh, barke. Mhm. ngir ñëw santale sëñ tubaa yàlla ndax sëñ tubaa bi mu woote bis bi daf ne ñëw leen santale ma yàlla. te mindaafin bu nekk heure boo xëyee war ngay sant yàlla ndax suñu borom baaxe nañu loo xamante ni bii mënaluñ ko suñ bopp ndax nooyi dong ngelaw li ngay nooyi dong mënoo ko defaral sa bopp yàlla moo la ko baaxee sëñ Touba nag lépp lu ma am ci bis bi la ko am euh, moo tax mu ne ñëw leen képp koo xamante ne bii sama mbég sa mbég la nga ñëw santale ma Serigne Touba waaw loolu moo waral euh, ñun ñu ñëw fii te gis ngeen jumaa ji ni mu feesee ñëpp ñëw nañ waaw ñu xool ne màggal gi depuis boobu ak léegi ak pandémie bi boo xoolee xelu nit ñi dalu ñu naan ah est-ce que am nañ sikki sàkk pour dinañ màggal yi wala ñu année ma ñu xool ndajeem diine yëpp dañ ko arrêté woon ba mu des màggal gi waaw xam nga loolu mooy wane rek ne sëñ Touba euh, ba muy liggéeyal yàlla xam daraje yàlla suñu boroom mu jox ko léppam sacrifier léppam yàlla nag bi mu koy fay maanaam naxu ko lii lépp ci pay ku ko yàlla fay la rek ndax sëñ Muntaxa bu ngeen ko seetloo mhm. bi feebar bi commencé rek daf ci am taxawaay bu mat sëkk yëkkati lu takku lu toll ak deux cent millions jox ko nguur gi pour jàppale leen ci ci ci ci ci xeexu euh, Covid 19 bi ensuite tamit bi loolu jàllee muy sol masque pour wane ne moom mi ngi joxe un exemple kon képp kuy taalibe rek war ngaa sàmmonteeg li nga xamante ni bi mooy ndigal yi li sëñ Muntaxa wax maanaam ku ñëw ci barab bi rek nanga nga sol masque raxas say loxo te it bu ngeen ko seetloo yaakaar naa taalibe respecté nañ loolu aussi mu xamal leen ne maanaam euh, virus bi euh, mindaa fi nu yàlla rek maanaam lu yàlla sàkk la comme ni mu sàkkee doomu adama yi kon yàlla moo ci mën a musal nit ñi lépp bu lépp bu ñu jëlee matukaay yëpp nag dañuy bàyyi suñu bopp yàlla yàlla bi nga xam ne moom mooy musal mu dàqal ñu musal ñu ci loolu te bu ñu fi jógee ñi ngeen yàlla mu jeex ci àdduna bi yëpp jeex ci Sénégal jeex ci àdduna yëpp ci barke sëñ Touba. Dakar Midi ñu ngi leen di ñaanal sëñ Touba yokku seen euh, grade yokku seen seen euh, chaîne bi ba fu ngeen bëgg mu yegg fa mu yegg fa ndax ku fi ñëw rek sëñ Touba ngay waa waaw jërëjëf te moom doomu adama yi fi ñu toog mbooloo mi ñëpp sant li ki nga xamante ne mooy suñu borom sant le ku tedd ki di sant le ki nga xamante ne mooy ku tedd ki di Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ko santale bisam bii mais man la bis bii lépp lu si doomu adama waaye def maxa man suñ Bamba mën nga ko defal. ñu di nuyu di leen siyaare. la. ñu sunu daje bi yàlla bu mu doon sunu mujjeelu daje yàlla bu mu doon sunu mujjeelu màggal waaw di wax tam ni rajo bi yàlla na ko yàlla def rajo TV yàlla na ko yàlla def rajo moo xam ne rajo askan wi lay doon rek di dox ci euh, ndigalu askan wi waaw di wax ni tamit sëñ Tuubaa yàlla nañu ko yàlla fayal ndax dañu wax ni ku def la ku def am payu yàlla te def na am na payu yàlla tabarakallaahu euh, la nga xamoon ni moom la demoon ji yaayatu ko ngir ñun taalibe yi rek ñoo tax ak julliti yàlla na yàlla fayal na ko euh, di wax ni nag euh, bisu tey bi borom bis bi defar na bisam nu euh, ñaan yàlla ku fi indi jàngoro mhm. yàlla na ko yàlla saafara koo xam ne kii indi nga fi mbébét loo fi indi lu ne bu dee jàmm ak lu mën a doon yàlla na ko yàlla saafara ñu ñaan yàlla it yàlla na ko tey déwén yu bari bu ànd ak wér bu ànd ak wérle bu ànd ak fekke bu ànd ak tal di ñaanal it suñu sëñ sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool bu ànd waaw jërë ngeen def di gërëm it directeur rajo bi. waaw gërëm di ko sant yi. voilà Mak TV ak dakaar Midi. ñu ngi leen di ñaanal yokkute rek ca kaw ca kanam. waaw ak personnel bi yëpp nag. waaw jërë ngeen waaw salaamaaleykum. mbokk Sénégal mbokk àddina. Mm-hmm. message bu may lancer rek. Mm-hmm. mooy ginaaw bu ñu sant yàlla julli su Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant sëñ Touba Cheikh Fall mm-hmm. di xam ne bisu màggal gii bisu jiyaat la ndax Serigne Touba libéré gi mu libéré woon tubaab yi. Euh, bureau ba sa ndar. moom la libéré feebar bii tey jii. ndax tey jii mun nañu wax ne. mel ni Serigne Touba rek. moo am ndaje bu mel ni am monde bi mu daj. ñëpp ngi daw feebar bi. ñun na suñ suñu Serigne Touba. <laughs> xam na kuy feebar bi. ndax moom fàggu na lii avant di ñëw sëñ Muntaxa moo jëkkee joxe deux cent millions pour feebar bi ndax xam na si zahir ak baatin mhm. wante feebar bi dafa am fu muy yem fii la doon xaar mooy màggal Touba ah. day gën a dañ ba set huit mais du yokk te bu ñu jógee fii barke Xaadimu Rasuul doo dégg kaa yokku na ndaxte seytaane yi ñu ngi préparé ñu maintenant non màggal gi nanga loolu loolu du fi am nañu teg nañu dugal seen maayen ne bu ñu teg yooyu fii naa ay màggal gee tax libéré. moo libéré l'islam. moo libéré l'islam est ndax tey kilifa diine yëpp mer gën na la. waaw tubaab bi menacé na leen kenn nangul yëngal. jàkk yi tëj na jumaa yi tëj na ndax feebar bi. te feebar bi ñu ne mooy pal yi te pal yi yàgg nañ dund ak moom Sénégal. tubaab lu lu jig si lu ñu jig euh, sibru jigul tubaab. pal mooy pali rek. kon nag Serigne Touba. Mhm. moom dafa jaayante ak suñu borom ba yàlla may ko lu mu mayul kenn. waaw kon nag lu mel nii dañ si war a sant yàlla bu baax màggal gi day confirmer lépp. xam na Serigne Touba bu yemul ak lu yàlla bind. man mi ngay gis nii. Uh-huh. Tijaan laa woon. bi bi ba Serigne Touba di oosu yoonu mur bi. boobu xaw ma bi may jëkk woon kaaba gi. Uh-huh. boobu ma ngi am 18 ans. dama la wax ni waxuma pour ñu may dégg. ñu may wax ñu may dégg te day am firnde. ba tëdd bu gudd mu woon ma kaa bi ak maam Cheikh Ibrahima tegal boobu xaw ma luy màkk. te dem naa ñaar yoon màkk te bu si nekk président Abdoulaye Wade laa ànd ñu tijjee ñu kaa bi dem kër buur fanaan fa. sama dërëm demus kon nag man mun naa gëm ne Serigne Touba yemal ko yàlla bind. ndax man xa ma ba ma koy wan xalaatuma leen. kon nag dañoo war a kennal ko sant ko gërëm ko. Mhm. kenn ku nekk sa waajur bu ñu ko dugaloon si benn euh, benn poxu nekk rek nga ñaan intervention seen monde bi yëpp tëj la. ñu jël ku seen ku mel muy xeexal l'islam jël l'islam bi. ñu ànd ak moom. Mhm. Touba bi ànd ak moom. ma ne ñi demoon dañoo wax lu leen neex rek ñu ñibbisi kee nag daa wax li nga xam ne mooy dëgg mooy nekkal gi mu nekkal suñu borom moo ñu ne lislaam du fi amee ah, moo ne dina fi amee foofu nag góor dëgg-dëgg góor dëgg la Serigne Touba doon kon nag yemaloog lu yàlla bind nañu bàyyi ràññee guddi ak bëccëg bokkul mais lu mu gudd guddi ba seen day gën a leer murid yi kenn mun leen a découragé loo ñun lu ñu gën gën lañ ko ba pare Serigne Touba lañ jëm tey moom lañ jëm ëllëg bu fekkee nag ñun bu dee rek fi ñëw faatu ab ab ab mbali day jege sën dégg lu wax dégg kon nag nañ dañ rafetal xam ne bés sëñ Tuubaa bi na feebar bi libéré na l'islam activité yëpp incha allah Tiwaawan Gàmmu Njaasaan yëpp dina démarré ndax sëñ Tuubaa tax nu mu leen libéré woon fee loolu libéré waat fii wasa jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ne ñi safoo di siiw fii ci àdduna bi di leen ñaanal jàmm ak salaam ñaanal li nga xamante ne tey li sëñ bi suñu borom fay na ko ko xoolal tey jumaa ji foo toll ñu fay jàng ay kaamil di wàcc di jàng xasaay di di jàng xatimu yi fu nekk mais lépp lu ñu ñaan si réew mi rek yàlla na ko yàlla def di ñaanal doomu aadama yàlla na defal defal tawféex bu baax a baax a baax maxa yàlla yokk nit ñi dafa leen jàmm ak salaam yàlla jëlee fi li nga xamante mooy mbas mi pandémie bi yàlla ñu ko yàlla si daraje Cheikh Ibra si daraje Ahmadou Bamba Xaadimu bi am na ko mën na ko parce que yàlla jox na ko di ko ñaan jàmm ak salaam di ko ñaanal si biir seen réew mi Sénégal yàlla may ñu fi salaamatan li may waxoon fële laay waxaat fii rek damay bamtuwaat toujours kàddu yi di gën a soññaat ñi nga xamante ne mooy mbokku taalibe yi ci li nga xam ne mooy liggéeyu sëñ bi boo xoolee ne fii ay xale yu ndaw fi nekk ñoo xamante ne xale yu jigéen lañ ñu bàyyi lépp jaayante lépp bàyyi dëddu àdduna bàyyi lépp muuru laxasaay yi takk seen digg yi fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa xam nga ne lii waaye lii waaye lii am lii fierté la lii fierté la may lii fierté la lii fierté la xool xale yi teg lax saay du liggéeyal ki nga xam ne may ku tedd ki xaadim na sol nee naa lii ferte la xam ne ndeysaan ñu dox ñu dox ñëw leen waaw ndeysaan ñu ngi fi nga xamante ne tey mooy xam nga boobu mu nekk xam nga bu tedd ki dafa ngi fii tey dugg ci ñaan seeni i soxla lépp luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla def ci barki yonent bi di ñaanal doomu aadama jàmm ak salaam mooy ku tedd ki ku tedd kee nekk fii waaw fii waa ñu dugg fii ñu nekk te ma ma ma ñëwal mën nañu jàll. ndeysaan waaw ñëwal ñëwal. ndeysaan. damay xam ne ku tedd ki fii la sëñ bi waa ndeysaan fii fii ñu nekk nii nag fii ki nekk ñu nekk nii fii la ku tedd ki nekk maxa xabru bi mooy kii moo liggéeyal yàlla suñu borom ba yàlla nangu moom mooy Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ngi siyaare bu baax mbooloo mi day gën di yokku rek day gën di yokku rek laa ilaha illallah dañu toog ñaan toog ñaan seeni soxla ñaan leen seen i soxla toog ngeen ñaan seen soxla te ngeen avancé bu ngeen toog ñaan seeni i soxla ñaan leen seen i soxla ñaan leen seen i soxla xam ne ku tedd kii tey lii am moo ko bu ñu noyyi sax moom moo ko waral ah, waaw waaw. bu doon Ahmadou ba léegi ay yéefar la doon jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba amuñu fayam àdduna ak amuñu benn fay Serigne Touba. billaahi wallaahi bu bàyyi lépp ngir liggéeyal ñu ñun ñii boo koy Serigne Touba mu bàyyi lépp dem dañu liggéeyal ñun ñii ñun jaam ñi. ko kuy Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul na leen kii dem leen jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba xale yaa ngi am naa yuux naa jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba billahi jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba lu jar a wax la bu loon Ahmadu mii billahi wallahi yéefar la ñu doonal ay ceddo billahi wallahi ñun amuñu fay Sëñ Tuubaa billahi wallahi bu loon Ahmadu Bamba billahi wallahi ay yéefar la ñu doonal ay ceddo mais nag kenn du ki yàlla ñu ko géejam gi billahi bisu tey bi wane na ko de géem bi bisu tey gi ëttu dir yëpp lañ tëj wallahi wallahi wallahi kenn du Sëñ Tuubaa kenn du Sëñ Tuubaa ñu xam ñu xam amuñu xam xamuñu lan la kenn du Sëñ Tuubaa xamuñu kan mooy Sëñ Tuubaa dëgg la wallahi asim xamuñu ko dañoo war a sant fuñu toll daay sax dëgg la dañoo war a sant fuñu toll sëñ bis koo xool xool mbooloo mii war sant Serigne Touba bu wér sant rek moo ñu war dara war a ñu dul sant luñ ko deful rek defuñu lu ñu war bu ñu goree dañoo war a sant Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf lii mu ñu defal sant ko rek moo ñu war jërëjëf Serigne Touba kenn du Serigne Touba kenn sëriñ dafa la ñu waaw ndeysaan fii nekk Mbaxaw la kii mooy ku tedd kooku di Sëriñ Fallu borom baa ngi nii di ko kii moom mun naa ne mooy nekk nii kii mooy yaakaaru Rama Mbaye ba ndeysaan mooy nit ku nga xamante ne tey lépp lu ko doomu aadama mu saana ñaan moom suñu Fallu defal na la ko moom Fallu mii di wax ne màggal gi nag lépp nit waaye ñaan yàlla ko yàlla nangu si doole Sëñ Tuubaa naa la maa ngi sax at rek day gën di yokk xale màggalu 2020 gi saw ñu ngi si gis ñuy gën a kéemtaane ñun so ñu si suñu ay kéemtaan ay surprise di ñaan yàlla yàlla yàlla yokk Sénégal jàmm mbas mi yàlla fi jugee yàlla fi jugee yàlla fi na fi de jugee na fi de waaw jugee na fi de waaw jugee <laughs> maa ngi leen nuyu yaay ma. maa ngi ziar. la. Numbe. Numbe ñëw fii. Ah, Pire. Pire ngeen ngeen. daayira Tasawudu Sixaar. Touba Ndom. Touba Pire. Touba Pire tey loo gisee ne mooy màggalu 2020 yi. ah kontaan rek ak ni mel nii. voilà ñoo ngi ñaan tamit nag yàlla yemale fi corona bi daal. voilà. tey daal oh, bëri yëg-yëg nga am si li nga xamante mooy sëñ Touba. Ah, kontaan. kontaan bu baax a baax. bu baax a waaw. fekk <laughs> nag dañoo mënul wax nag mais kontaan nañ trop. billaay. ndox ma man rek bu ñëwee fii. yàlla joxoon ndox nga naan. waaw ñu tamit de lépp lu jublu si li nga xamante ne mooy liggéeyu màggal gi rek ñoom ñu ngi ci boo soxlaa café mën nga dem fële mu dee ndox nga mar mën nga ñëw fii ay la ay la la ndeysaan ah. fii képp ku mare bu fi jaar dina naan hmm. waaw dina naan moom dina naan bu baax baax baax baax te nañ ñaanal jërëjëf sëriñ Saliou sëriñ Saliou yàgg sëriñ Saliou ñu bëgg ko ba deewaaleeg moom ñun loolu rek lañ si bëgg bëgg ñu cent francs nag kuñ si jox cent francs wala merci ñu la ko moom ñun xam nga lan lañ si jublu yàlla ngeen bëgg sëñ Sadio ba deewaale ak moom loolu rek lañ si jublu waaw ay ay si ay kaas lañ ko doon def ndox mi mais fi jamono bi tolloo tax moo waral ñu indi ay sibel waaw pour nit ñi ñeme xam nga joxe ndox nit naan ko si kopp tegaat ko keneen ñëw naan loolu noonu mën naa bañ a bokk si orma yi comme fi jamono toll waaw moo tax ñu indi ay sibel nii waaw noonu la demee nag moo tax ñu respecté mesure de barrière yi indi ay sibel waaw di ñaan ñi si jàpp ñëpp ak Baay Faal yeeg ak mbokku taalibe yeeg ñëpp ñu wax ñu ñaanal ñu rek ñu bëgg sëñ saali ba deewaaleeg moom ba deewaaleeg moom amin loolu rek lañ si bëgg waaw ku naan ba pare amin amin yàlla na ko yàlla na ko yàlla def kii nii mooy suñu jëwriñ kii la ab mbàkke mbàkke la direetu sëñ Saliou ndeysaan waaw jëwriñ ñu ngi lay nuyu ba wala jaar wér ñu jël jaar wér wala ah, naka tey ñu ngi jàmm baax kay alhamdulilah ren dañoo sentir màggal gi nag ren ba màggal gi moom ba jëf ah. sëñ ñaan yàlla muy gën a yokk chaque jour waaw comme niñ koy amee chaque at rek waaw mhm. du du du day reculer. parce que dañoo mbooloo doon benna waaw xam nga ah, mbooloo. ab say sayu matt damm ko du yomb. waaw te dañoo mbooloo doon benn dañuy ñaan yàlla kenn ku ne yaa xam li la fi mhm. fas ko. suñ Tuubaa defal la ko te am na ko nag waaw ñun ñëpp dañuy ñaanal suñu groupe bi ñu gën a jëm ci kanam chaque jour ñu am ñu gën a am doole ci li ñuy liggéey ndax defuñ ko pour pour pour kii nii dañoo def pour gën a yokkute nit ñi xam ne ñoo leen tax a jóg waaw te ñi jégalu bu baax nag ci kàddu moom moom rek moo maa ngi lay nuyu bu baax ma maa ngi lay fay di la delloo ziar waaw bu soo ñun moom chaque année fii leen ñëw di tàngal café di liggéey Serigne Touba lépp dañuy dem dañuy dañuy dem Dakar nekk fa daan suñu doole après bun pare di liggéey di màjjal mbokki taalibe yi diñu jox ren jii nag jafe woon na trop ak Covid 19 bi ñu waane liggéey suñ tuwaa rek moo wóor ñu ñu góorgóorlu di góorgóorlu di ñafe waane suñ xool xoolal bagage yaa ngi nii gars yi looñu leen indi li loo leen indi tàngal café lépp la ñuy def si xéwal suñ bamba gi amin amin amin amin amin amin boo dee yàlla kontaan nañ trop di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla yàggu fi loolu te wér ak mboolemu jullit ñëpp di ñaanal ñëpp waaw dara ji Sëriñ Tuubaa. Ah. waaw waaw. maa ngi lay fay nuyoo sëñ bi. maa ngi lay siyaare bu baax ci di wax tur bi nan la. Ndeye Astu soxna la. Ndeye Astu soxna. Mm. fan nga jógee ñëw fi. Géejawaay la jógee. waaw Géejawaay nga jógee. Mm. kon sama mbokk sama mbokkum Géejawaay yaa ngi ne ñun kenn gën ñoo bëgg sëñ bi fu ñu dem ñu ngi fa. waaw waaw sëñ Tuubaa rek ci yàlla. te doo gisee tey li nga xam ne mooy màggal gi nga xam ne mooy màggalu 2020 gi doo ko gisee tey. kontaan kontaan xol sedd guy vraiment ñu moom waree na ne moom wax dëgg yàlla ñun euh, mbas mi fi nekkoon ba tax suñu fit yëpp demoon yàqaluñu dara ci suñu màggal macha allah sëñ bi moom def na ci xéwal bu baax a baax a baax a baax sant yàlla bu baax macha allah. Mhm. ñu ngi lay ñaanal ñu tam yàlla yàlla may gudd fan nga di ko bu bëree bare bare bëri tey nga gën a ñaax doomu aadama yi rek suñu jël si masjid bare loolu la gën a wax. Euh, xanaa rek ñu gën a vigilant gën a farlu mhm. fexe lépp li nga xam te sëñ bi jox nañ ko comme digal ñu topp ko jéem a bàyyi tere yi naa ne bu ñu ko defee moom incha allah rabbi ci kaw ci kanam rek ci lu baax incha allah. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. maa ngi lay nuyu di la siyaar ku baax ñu ngi delloo nuyu di la siyaar bu baax a baax a baax. tey nga ñëw ci. waaw di sant yàlla bu baax di sant suñuy waajur di sant ki nga xam ne moom mooy waral bis bi di sañ Bamba di wax ni yomb na yombul ñëpp yaakaar nañu màggal gi ren ñëpp a ngi ci ñaar waaye sëñ Bamba du kenn kenn du moom dañuy ñaan suñu borom rek ah, li nga xam ne moo doon tax nit ñi géexi jaaxa di xel yàlla na ko suñu borom jële ci génn ko ci àdduna bi yëpp lépp lu waay ñëw ñaan ko fii foo mënti bàyyi ko yàlla la ko suñu borom nangul danjul yi ko fa yàq yëgul ñun yàgg ñun ñëpp ñoo baax a baax incha allah incha allah yàlla baax na yàlla na suñu borom ñëpp sàmm ñëpp sutura ñëpp nangul ñëpp barke sëñ Bamba kontaan nañ bu baax a baax a baax gis nañ liggéey bu baax bi ngeen fi liggéey ak yeneen bërëb yoo xam ne yeneen millions yoo xam ne yéen fa dina def liggéey bu am solo kon dañ leen ñaanal yàlla li nga xam ne moom moo leen tax jog jóg pour siiwalal xibaar yi nga xam ne ñun ñu xamul pour ñii di ngeen xamal leen ko dañ leen ñaanal yàlla suñu borom liggéey bi ngeen tax a jóg yàlla yàlla aar leen yàlla na sàmm leen seen site bi nekk ay site yu bëre ba dem nekk ay tali yu bëri incha allah yàlla barke leen seen njiit yéen ñi nga xam ne yéen ay euh, caméraman yi nekk ci biir ma ci digg ci euh, euh, ci ci terrain bi yàlla yàlla aar leen sàmm leen suturaal leen màggal gi ngeen ñëw ren déwén bi ngeen di ñëw yàlla ngeen fi indi yeneen matériel yu bokkul ak yii yàlla yàlla mootale kontaan nañ ci